The Lampita dans votre journal People à la présentation, Seydina Tange Tandiamou Serigne Saliou sur le canal 8 TV Orange ou le canal 28 en Gambie dañuy dellu soit ci beneen phénomène bi nga xamante ni am ci semaine bi diggante Amina Poté di animatrice foofa ca TFM ak kii di Kouthia ginnaaw bu ñu gis nañu Amina Poté yëkkati ay révélation wax ko ci biir émission yëkkati di tag kii di ndey Fatou Tine alias Titi ku nekk nag xam na ni Amina Poté digganteem ak vivian mburu ak soow la woon ak suukar kenn xaju ci ndaxte su ngeen xoolee am na ay conseil yu bëri Amina Poté moo ko doon defal kii di vivian donc Amina Poté vivian la gën a joge que Titi man xam naa ci dara ndaxte ba ñuy dem fële ca Las Vegas ginnaaw moo géet ba mu bëggee woon indi foofu vivian ba ñuy négocier contrat bi je crois que Amina Poté joué no ci partition bu bëri mais nag dañuy gis ay coow yi nga xamante ni Amina Poté jóg na di tagg kii kii di Titi ne ko kenn du la dégg ci benn coow nit ku am classe nga nit ku am fulla nga bokkook ñoo xamante ni plastique lañu ñu seen yaram bi yëpp dañ ko opeere def nangam sangam kërti kërti ginnaaw bi coow yoo génnee nit ñi yëkkati nañu ay kàddu nag nee nañu naa Poté dafa jote ak vivian moo tax muy gaaruwaare Viviane ci plateau bi li indi wax ji nag nee nañu kii di doomu Viviane di Zeyna Ndour dafa créé benn marque produit ay tee di ko jaay xëy na coow li foofu la jóge lu samay kàddu nag lu nit ñi wax la comme leerul ci bopp askan bi moo tax man toujours damay vérifier pour indiwaatal leen coow li naka la demee. ginnaaw ba ñu jógee foofu à la grande surprise dañuy gis Kouthia nekk animateur. humoriste foofa ci TFM ci biir émission momit mu jog di tontu ki di Amina Poté né TFM ken xamé fi lolu Zeyna Ndour xale bu yaru la xale boo xamante mi ngi gor gorlu dañ ko wara encourager su tégué ay marque bopam je crois que lolu aussi deug la ndax té xalé tay su nekkee di liggéey dañ ko ci wara encourager mo gënon ñukoy gis ci lenen ak lenen comme ni ma leen ko waxee rek man nekkuloo fi ma samba nekkul ma fi dem suma la gisé nga nekk ci safaan ba dina ko wax suma la gisé nga nekk ci lu baax dina ko wax tay su dé Zeyna Ndour dafa créer marque bopam ak âge bu mu tollu di des ay produits dañ ko ci war encourager te aussi personnellement de Viviane en tant qu'artiste chanteuse en voix nit ni beaucoup ko daf ko war accompagner ba produit numéro un parce que patriote sénégalaise la moo teg entreprise am dañ koy saluer di ko plus particulièrement mon ministre en Tandian dama koy rafetlu su dee liggéey rek la moo mon tax de jóg nit bëgg ci compte Zeyna Ndour dañuy àndal foofu ginnaaw loolu nag ku ci na ay tekk ci nee na loolu moom moo métti di Amina Poté du samay wax waxu koutia la moo mu ne TFM du télé pour règlement de compte Soit amé sa problème personnel dang koy régler ji ci biti mais doo ko def fi muy ben polémique bo xamanteni ni qui ci diggante ki di Amina Poté ak ki di koutia ba ben way sax bo xamanteni je crois que étranger la nek xawma Allemagne moom day def ay live genn na ci dal ci kaw Amina Poté ba yëkkati ay saga yu nday yu bari tek ko ci kaw Amina Poté ba yëkkati ay cadeau yu ñaaw tek ko ci kaw Amina Poté ginnaw loolu dégg nañu Amina Poté jël na volam dem Allemagne porté ji ko plainte moom nag bi mu yëgee plainte boobu nee na jotagul plainte mais lenn daal xam na ko ci teg na benn discussion boo xamante ni ku sant Tambédou mi ngi ko séqoon ak moom ak Amina Poté ci biir benn instant nag Amina Poté dafa génn ligne bi moom mu nekk Allemagne di def live am xamal ne ni que Amina li muy wax du dëgg moo tax mu teel a génn ligne bi nañu déglu ju vidéo Kouthia Amina Poté ba noppi ñu déglu vidéo bii nga xamante ni waa ji nekk Allemagne te Amina Poté porté ko plainte lan la wax. ay yóbbante jàmbur nag boo taxawee télé te jàllale woo ko nit. So, amé sa problème demal ak ki nga amal problème nga réglé ko TFM c'est pas une télévision de réplique yooyu amou fi. lu yousou Ndour déggul kon bo bëggee di wër di tontu nit ñi mën nga def erreur ndax wax du ñëpp ko mën. ñu ko arrêté nak sinon day mel nak que ñun amuñu ay administrateur yu am fulla ak fayda pour régler yenn problème yi. ñun dëkkal nu fu ne avant ñuy yegg si fii gor du bañ tuuma waaye nañ fekk fexe fexe ba buñ la ca gis ndax gàcce ngaa laa ma nag archive ru démb ak tey buñ ko doon génne kenn du gis te lu ñaaw yàgg sa njaboot waxalu leen fi dara. y a des yoo xam ne buñ la dénkee wareef wareef nga fa war a def buñ la fa dénkee jàkkaarloo politiquement jàkkaarloo ngay def buñ la dënkee animation sa yoon nekkul ci ay yeneen waaw. waaye nag njaga mooy ndey ji seex. njaaxaanaay la tëddee ku mer bu la neexee dëpp. munoo tok ci garab nak di gor. mu ta parce que fa nga tok di gor ka ngay gorantel bay bayam la. te gis nga nit du lek lu dul wërsëgam ku ko fi jëm da ngay dé mba nga weeru xam nga profité wërsëgu jàmbur ak di yakal nit lu muy def nit da ngay xey yalla weer la mbala nga gatt fan mbala nga fajo li ngay liggéey. xale bu jugee pour liggéey mooy nangutul laaj yaayam nangutul sonal baayam dafa jël yoonu boppam mooy jeune entrepreneuriat kii de kii moo ko may sama doom Zeyna benn waaw doomu Viviane. kon bàyyi leen ku ci nekk ak la muy def ku ci nekk ak wërsëgam te ngeen bëggante ku ngeen ci àndal xam ne ànd bi sincèreul mu ngi lay jàmpaaka gannaaw li tax ngeen di maslaa ba ko mu dem bu leen forcer relation ku la buggul ba ko il faut que ngeen wuyoo li ngeen doon Sénégal nag ku fi juddoo te yoroo jikkoy gaynde danga fee ganasi euh, Amina Poté ñëw na Allemagne def plainte man nag gisaguma plainte déglu leen ma bu baax déglu leen bu baax ma wax leen gisaguma plainte de Amina Poté dan na ma rek ñëw na Allemagne def plainte pour plainte ndax li ma ko saaga woon ak li ma ko waxoon mu ñëw ba Allemagne paas ticket Sénégal ñëw ba Allemagne def plainte am mais avant muy def plainte daf ma woo ci appel benn gaayen moom ma woo mu dugal ko ci xam naa ne dafa bëggoon bu ma Amina duggee ci appel bi ma ko eg maa lay jéggalu xam nga man maa ngi lay jéggalu xam nga maa ngi naan la nii baal ma ak affaire bi nangam nangam vous connaissez Adamo yéen xam ngeen ma xam ngeen ne man du ma waxee rek jeex na du wax naan damay damay wax ni naan ko ay baal ma ak wala may génn dina ti que ça ce soit vous connaissez aadama bu baax avant muy ñëw Allemagne nag di def plainte déglu leen bu baax parce que appel bi dama ko registraré ngeen déglu Amina Poté ak gaayen bi dégg nga Ibrahima la woo Tambédou bu Allemagne xam nga moo ma dugaloon ci appel bi ndax man du ma dugg ci appel léegi gars yi dama bëgg ngeen déglu appel bi moom ñëw na Allemagne ba def plainte xam naa tey la ñibbi su ma juumul tey la ñibbi man gisaguma plainte nag lu ma gis rek dinaa leen wax mais déglu leen bu baax a baax appel bi déglu leen. parce que aadama soo gisee ma woo ko wax dëgg yàlla wax naa la ko moom daf ma respecté dama jox cër. fii te loolu lépp tey jii mën na ñàkk énergie yooyu yëpp mën na ñàkk parce que man waxtaan naa moom ba pare daal am na lu ma jot a wax ak moom nag loolu nag jarul tamit man ma ciy dellusiwaat comme ni ma la ko waxee. Euh, ma koy nuyu moom Adamo parce que xaw ma ko mosuma ko gis mais euh, respect laa am ci moom euh, man aw ma habitude di seetaan ay vidéo internet parce que gis na ne Sénégal mën nañoo tudd ku ne ba mu des man ndax liggéey naa télé pendant du mais respect laa am ci moom que gis na ne Sénégal mën nañoo tudd ku ne bam def man ndax liggéey naa télé pendant 12 ans cër réew mi jox nak cër bi ma leen man nak comme xawuma ko te awmaak moom affaire juste ko dama koy laaj man lan la ko def ba war ma wax ne ma tiaga nga li tass sa dañ lay tëddee partout dans le monde mouchoir nga yor di fomp sa ba paré ne ma dina toj man na moo bëggoon laaj lan laa ko def. Hmm. ba mu wax ma loolu problème boobu rek laa am pour laajte ko. Hmm. ok sëñ Ibrahima woo na ma sëñ Ibrahima ba moo woowee daf moo wax ne ma dem nga interview yaa ngi plainte ma ne ko xoolal sëñ Ibrahima ngir yàlla ak war a suuli bàyyi ko mu def li muy def lépp mooy ngi xaar plainte yi di xaar ko muy ñëw non déglu ma rek na waaw danga ne ma moo wax nag dama koy expliquer saaga wu ma ko. dama ne sëñ Ibrahima ne ko bàyyi ko mu def li muy def ki muy waxal du ragal tiitul ku nekkul ci yoon da koy gérer aw ma lu may ragal ci àdduna bi man xam ngeen ko dama ne la damaa seetaan yow sa émission. Viviane waxuma dara ba tey message su ma sax gërëm ma ndax moom jëgul dara damaa seetaan sa émission ngay teg ay wayu critique ci yaa ngi dégg di gaaruwaale ndax li ngay wax eh, eh, Viviane Ndour ngay gaaruwaale ak doomam Seyna Ndour te yow Viviane defar na la lu ne yow ci boppam yow yaa baadoo la yow a ah, yow nit du baadoo la nit. Eh, waaw déglu ma rek ah. non non dañuy waxtaan dañuy waxtaan nit du ba waaw daf maa laaj li mu def ma wax ko li muy def mu tontu ma. waaw nit waaw waaw defal ndànk rek defal ndànk nit du baadool dama ne woon du ma wax ak yow parce que man aw ma lu may ragal man tiitu ma dara aw ma dara lu may ragal sama àdduna dara moom Ibrahima xam na ko ba ma woowee billahi dama ne la yow loolu nga def ma génn dal sa kaw parce que Viviane ku baax la yaa ngi dégg man sama nit la comme ni ko Waly Seck nekkee mais du ñëw damay bind naan ma waxal ci nit waxal ci jiw déedéet man maay xool samay nit ku ma dégg nga wax dara wala nga def loo xam ne ni amul yoon damay def sa photo laa koy def amul Sidi Diop bàyyiwuma kenn kenn nag laa la wax waaw man nag li ma lay wax loolu la noonu la demee Viviane Ndour boo ko bàyyee di gaaruwaale wala nga nekk say affaire nekk sa yëfu bopp ku nekk am jàmm ndax musuma laa dépassé sama yónni wu mais nii ni samay nit moom ku ma dégg nga laal ko muy Viviane ak ko Waly Seck sama yónni wu ci keneen damay ñëw ma génn ma def vidéo wax a yow jeex na ak man mënti doon nag loolu mooy wax bi amul leneen. waaw kon affaire bi kon affaire bi problème bi ci VVR la jóge daal ci waxu VVR la quoi. moom la doon gaaruwaale de man ci moom laa defee vidéo euh, parce que moom la doon gaaruwaale ndax day day def day def benn publicité. di ko defal doom ji. wax ba pare tambe euh, du man conversation ko def. waaw. Mhm. danga ma ñaan moo tax ma nangu ko. man maa du nangu man ci boppam maa nanguwul dara bar ba may dugal ci appel bi dama ko wax lu leer man awuma lu may ragal xanaa xamoo ki ngay waxal Amina Poté man kenn mënul ci man dara. wala xamoo loolu kenn. bul coupé bul coupé. waaw bul coupé bul coupé. Tambédou. Adama Adama déglu wax ji déglu bàyyi bàyyi. maa ngi koy déglu bu baax. moom na wax rek maa euh, ngi Tambédou man euh, man man xaw ma woon ni sax moom moo jàpp ne xëy na Viviane lay gaal. yëpp a ko jàpp Sénégal yëpp te loolu moo am. parce que yow naa fekk nga doo ko baax. waaw. titi dégg nga mi ngi may euh, mi ngi may. Ah. waaw ok am problème sëñ Ibrahima maa ngi déglu. parce que Viviane Viviane. pendant cinq ans man moom laay ubbee sama émission titi am problème artiste la ma am yërmande ci laa ko tegee ci télé bi ne ko France tu es la tu la lion parce que jigéen bu dee jigéen nga boo nekkee artiste nga am natt boo xam ne dal na la ñu naan kii papaam la ak du papaam sama yërmande moo tax ma jël titi teg ko ci télé bi di bousculer titi pour rek mu gën a free pour carrière bañ a yàqu man ak Viviane amuñu benn yow ci boppam yow ci boppam yow yow ci boppam. yow ya yow Zeyna Zeyna Ndour marque bi. déglu ma rek Viviane Ndour marque bi naa di jaay xam nga coupé na coupé na ndax li muy wax ay duul la moo tax mu. foofu la yem léegi nag dégg naa ñëw na Allemagne ba def pelantam mais maa ngi koy xaar comme dam rek déggoo li ma la de ñaar ñii Amina Poté Viviane Ndour tooñul kenn ku am classe la kii di Viviane Ndour kii di Wally Seck ku leen laal ay ak foo mënti nekk Viviane Wally Seck ku leen tudd foo mënti nekk moo xam président nga ak foo mënti bokk amul sax lu may werendi loolu amul fenn léegi nag dégg naa ñëw na Allemagne def na plainte am léegi ñun dañuy xaar plainte yi comme dam rek kon yaakaar naa ni ñoo déggandoo vidéo boobu nga xamante ni dox na ci diggante Amina Poté ak Kouthia ak vidéo boobu nga xamante ni moo waral plainte bi ak ki ñi plainte lan la tontu lampita